allahuma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushur ginnaaw buñ santee buur yàlla subhaanahu wa taala nan ngi julli ci sang bu tedd bi te mooy ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam réew Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu bi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé mbokk yi xam ngeen ne keroog buñ doon taxaw ci waxtaan wi ñu ngi taxawoon ak yéen ci xadiisu Uqbata bun Aamir radiyallahu an ci ndénkaane ba ko yonentu bi baaxee sallallahu alayhi wa sallam te mooy ndénkaane boo xamante ne mooy waral la koy tax texeloo waaye mooy waral lay tax mu doon ki mucc xam ngeen ne tontu ba ko bi tontu sallallahu alayhi wa sallam ñetti baat yooyu bu ci jiitu mu ne ko nang ma tiil sa làmmiñ ci bépp wax ju ñaaw ak lu ci aju ñaareel bi mu ne ko na sa dëkkuwaay doy yaatuwaay nga bañ a génn di taxawaalu ñetteel bi mu ne ko na nga dugg ci say ruq di jooy sa bakkaar ya nga defoon bakkaar ya nga defoon toog jooy ko di ko xelaat di rëccu sa dëkkuwaay doy la yaatuwaay boole kook tëy sa làmmiñ ci wax yu ñaaw ñetti ndénkaane yi képp ku ko dund ci sa dundin ah rafet nañ jortu ne dinga mucc ayib sa melokaan dina doon melokaan wi nga xamante ne képp ku la gis dina xam ne yow ku mucc nga ndax boo taxawee wu taxawaay wi mun na laa yóbbu ci li nga xamante ne dalay sankuloo te da ngay perte say temps ba tax na làmmiñ boobu yonentu bi tuddal saxaabi bi ne ko nan ko garde ci bépp wax ju ñaaw kon bu ñu yàlla mayee xéwal ak okasiyon ak kado bu neex ju mel ni lañ doon def ci waxtu su niiw di nelaw yàlla bu ñu baaxee bi ñu war a dund beneen bis ci bis àddina yi lañu ñu bi santaane sallallahu alayhi wa sallam mooy ne nañu bokk delloo yàlla njukkal sant ko sant yàlla bi ñu wara def gannaaw bu ñu yewoo ci nelaw amul kenn ku ñu ko jàngal lu dëppee ak ni ko yàlla bëggee kudut yonent bi ndax moom la yónni ci askan bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi cant yàlla boobu ñu war a def gannaaw bu ñu ximmelikoo ci nelaw yonent bi ñu ko jàngal mooy yonent bi yàlla doyloo ci jaamaam yi mu daldi ko yónni ci askan sallallahu alayhi wa moo ñu ne képp ku yeewu ci nelaw na sant yàlla ci baat wax ne alhamdulillahi ledi mboolem xeetu cant yu kawe ñeel na yàlla buur bi nga xamante ne ahyaana moo ma may ma dund baadama amatana gannaaw bu mu faatoo sama bakken ci nelaw wa ilayhi nusuur te ci moom yàlla lañuy ñuy dellu gannaaw bu ñu jógee ko ci kaw suuf si bu ñu deewee ci moom yàlla dong la ñuy dellu du ci kenn du fenn yàlla mi ñu bind ànduñu fi àpp bu mu àppalanteeg ñun bu jotee bañ ñu fi jëlee ci moom dong la ñuy dellu lii la ñuy suñu yonent jàngal sallallahu alayhi wa ba tax na yow mi jël Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi nga di ko wéttalanteeg ñun nañ leen bokk xool ana la yenent bi dénkoon saxaaba bi am beneen boroom xam-xam di sufiyaanu sawri rahimahullah moom it mu daal di feelu xadiisu yenent bi sallallahu alayhi wa waaye nag lu jiitu ñuy andi waxu sufiyaanu sawri rahimahullah waxu xasanul basri la ñuy njëkk andi su ko defee ñu ànd ak yéen andi waxu sufiyaanu sawri rahimahullah xasanul basri di boroom xam-xam ju mag ci jamonoom daf ne yow doomu aadama bi nga xamante ni yaa yeewu ci nelaw bés bi ak bés yu weesu ak yeneen bés yay ñëw yan nañu fi fekk te ñu tal bés boobee nee na na xam ne bés àddina yay jaar di jàll di dem bés yooyu ñoo fi tax a nekk ñoola fi tax a bàyyi ba tax na danga war a bàyyi sa xel ne amul benn bés bay ñëw di jaar di jàll lu dul dina am la mu yóbbaale ci sa dund bi moo tax mu ne la ibnu aadam innama anta ayyaamun kullama zahaba yowmun zahaba baaduk yow doomu aadama bi de bés yay jaar di jàll ñoo la fi tax ñoo la fi tax a nekk kon nanga nga sa xel bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne bés boobu am na lu mu wàññeeku ci yow noonu ngay déggee xadis su ko defee ñu andil leen waxu boroom xam-xam su mag ki maasele woon ak taabiina yi mu doon sufiyaanu thawri rahimahullah sufiyaanu thawri nee na haza zaman sukut walluzumu lbuyut wa raddan bilquuti ila an tamuut sufiyaanu sawri rahimahullahu nee na jamono ji ñu nekk nii de jamono noppi la jamono yi ñu nekk nii de jamono bari li ngay noppi ci wax yu ñaaw yi la buñ ne nag jamonoy noppi la wax ju ñaaw la fi jublu wax yu waxuwul di jëf jëf yu jëfuwul di melokaan di di meloo melokaan ya diini gërëmul nee na jamono ji de jamonoy noppi la ci wax yu ñaaw moom it mu jël loolu def ko njëlbeenu tegtal ci jamono ji mu ne haazal zamaan jamono ji ñu nekk ni haazal zamaanu sukuut jamono ji ñu nekk ni jamonoy noppi la ci wax yu ñaaw ana waxu borom xam-xam wi ak suñu yi tey seen compréhension ak a wuute boroom xam-xam bi di Sufyaanu Sawri ku kenn naataablewul xam mam ci jamono moo ñu ne jamono ji ñu nekk nii de jamono yi noppi la ci wax ju ñaaw am ñu nekk ci société bi ñu ne ko jamono bi de jamono wax lu ñaaw la gis nga àddina nu muy doxee nit ku yiw ki yàlla baaxal ci askanam yàlla baaxal ko ci tànneefam yamu tànn yàlla yenkeewal ko xam-xam mu baaxee askanu jullit ba mu bokk mu ne jamono bi jamonoy noppi la ci wax ju ñaaw am ñu ne déedéet jamono ji jamonoy wax lu ñaaw la jamonoy xesante la jamonoy wilipande sekere la jamonoy wax lu du dëgg la jamonoy xeeb nit ñu baax ñi la moo tax conséquence bi ñu di ko gis amuñu ngelaw bu fiix climat bi sax faf tàng jir waaw donte dañ koy jiiñ yàlla donte dañ koy jiiñ yàlla waaye suñu jikko ak suñu melokaan moo tax climat bi ñu mu duñu offrir ngelaw bu tàng jir du ventilo moo koy contre du clim moo koy contre di lenn dañoo topp di subir tàngooru climat bi ndax daf ñu jéppi waaw ndax la wax ndax comportement yi ndax nekkin bi waaw dara normalul lu ko waral comportement doomu aadama yi lu ko waral comportement nit ñi lu ko waral question baa ngi ni waaw yonent bi tegtal na saxaaba bi lu koy tax a am ñu naan déedéet ñun duñu def loolu contrôle bi la ñuy def voilà boroom xam-xam bi di Sufyaanu Sawri nee na jamono ji jamonoy noppi la ci wax ju ñaaw am ñu naan déedéet whatsapp yaa ngi fi whatsapp groupe toppkaa yaa ngi fi whatsapp groupe wilipande sekere yaa ngi fi whatsapp gurup toj gàllaaj yaa ngi fi whatsapp bu groupe bi nga xamante ni kenn mënu koo lim nu ñu tuddee groupe bu whatsapp yooyu sax baaxul santul yàlla diine reconnaître ko ku baax ku ne boo déggee turu groupe whatsapp yooyu dangay dar sa gémmiñ turu whatsapp rekk wal na la groupe boobu la fay meññee lu xew moo tax boroom xam-xam bi ne jamono ju ñu nekk nii jamonoy noppi la ci wax ju ñaaw mu teg si ne walluzuumu buyut jamono jii de jamonoy sax dàkk la ci sa kër waaw tànnal ñetti bërëb na ñetti bërëb yooyu doon sa jëmmukaay nga noppale ko tànnal sa kër mu doon sa jëmmukaay waaye tànnal jàkk yàlla mu doon sa jëmukaay bu koy ñettal nag na doon ñaari palaas yi benn na doon marché bi ngay dem jëndee la nga dunde walla liggéeyukaay ba ngay dem fàggu la ngay dunde bu dee marché bi mënuta doon bërëbu ñetteel ba ngay jëm na sa palaasu liggéeyukaay doon ñetteelu palaas ba ngay jëm buñ ne palaasu liggéeykaay nag tool cala bureau cala waru waruwaay balay yit la ngay dundee cala ak xeet yi waaw waaye garam palaas yi éliminer ko palaas yi ñuy defee jeu éliminer ko taxawaalu di dem xamoo fuy jëm moom loolu defe naa ne ah magum jëmm daal du installer loolu ci programme journée rawatina ci dundam yow fu ñu la fekk rek dañ lay fekk ngay dox looy dox ku la ko laaj sa doo ko wax fuy jëm lu lay dox loo doo ko xam li nga soxla ci biti bi ngay dox doo ko xam utoo dara wóoroo dara di dox rek di dem loolu moom defe naa ne ko ànd ak sagoom loolu kenn du ko def ba tax na boroom xam-xam bi ne jamono ji de jamonoy dëkk sa kër la nga takkook sa kër sa kër miin la nga miin sa kër sa kër mu doon falay neex nga neex sa kër su ko defee kem fa bokkal dëkk muy soxna si walla muy sa borom kër yow soxna si nga bañ a bàyyi sa borom kër di taxawaalu ci mbedd noo koy téye nag bokk na ci dee ko wax wax ju neex noo koy téye bokk na ci dee ko won melokaan yay tax du xool leneen ci biti noo koy téye bokk na ci nga dëkk ak moom dëkkin bi nga xamante ne xattaa bu génnee bu xelaatee nangay ngay ak moom day gaaw a delsi ñëw war a mën a dëkk ak yow kon boroom xam-xam bi di Sufyaanu Thawri rahimahullah bu ne jamono ji ñu toll nii jamonoy noppi la waaye jamonoy nangoo toog sax dàkk ci sa kër la buy génn na la lu am fu la tax a génn nañu nodd yàlla salaa yàlla falaa na la loolu tax a génn nga génn dem joxe waxtu yi farata boo paree na laxasaayu dellu sa kër ñaareel bi la lay tax a génn na doon la nga xamante ne mooy la ngay dem ut foo koy utee mun na nekk bérébu liggéeyukaay ba mun na nekk marché ba ñaar ñi fu mu munti nekk demal jël sa wërsëg ci suufu yàlla si ngir nga mën kaa dunde bu dee marché la demal bu dee palaasu liggéeyukaay ba demal fu dut ñetti palaas yi leen limal nii na nga géem a tënk sa bopp ci li nga xamante ne mooy fa yàlla gërëm ne nang fa nekk na nga géem a tënk sa bopp fa yàlla ne nang fa sax te yenent bi tontu ko saxaabi ba ko doon laaj ana lan mooy texe wala ana lan mooy mucc boroom xam-xam su mag di xasanul basri wax la bés ya ngay dund bés yay jaar di jàll la ba tax na danga war a bàyyi xel bés yooyu bu di taxawaalu bul def lu defuwul bul di nekk nekkin bi nga xamante ne islaam reconnaître ko ku baax ku ne cautionné wu ko nga sàmm sa bés boobu ci dignité ak honneur ak xeetu jaamu yàlla ak melokaan bi nga xamante ne day tax bés boobu keroog bu lay seede ci kanamu borom bi danaan bés bi dee def na ci man lu baax li wax na ci man kàddu ju baax li dem na ci man dem na keroog ci bërëb ju jiw dox na mbokk dimbali na jirim dimbali na miskin taxawee na faqir jóg na dem doxi soxlay mbokk jullit xeetu baax baax bi képp ku koy jëf ci bés bi chargé nga sa programme dundin nu mu gën jekkee nu mu gën a baaxee bi léegi Sufyaanu Sawri rahimahullah mu joxe ñetteelu tegtal bi moom mu ne jamono ji de jamonoy toog sa kër la jamonoy noppi waaye jamonoy waraadin bil quut ila anta tamuut nga doyloo lu tuuti lala yàlla wërsëgal nga di ko mos mu doon sa dund ba keroog ngay dajeg sa borom ñetti tegtal ya sufiyaanu sawri tegtal fii wallaahi summa wallaahi képp ku ko taqoo mucc nga kenn du la xamal dara kenn du fi ne moo fi ñëw kenn du fi ne moo ko fi waxee kenn du fi ne moo fi jaar waaw buñ koy wax tamit ci côté bu baax bi lañ koy wax mais duñ ko wax ci côté bi nga xamante ne day doon côté bu ñaaw déedéet waaw ndax nangoo nga toog sa kër nangoo nga noppi ci wax ju ñaaw waaye nangoo nga doyloo astuut lala la yàlla wërsëgal nga di ko mos ba keroog ngay dajeeg sa borom su ko defee nii lañuy ñuy déggee la nga xamante ne mooy maana xadis bi ak maana waxu boroom xam-xam su mag di Sufyaanu Thawri rahimahullahu rahmatan waasiatan mbokk yi ba léegi ñu ngi leen di fàttali ne yéen a ngi ànd ak ñun ci réew Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci bërëb bi ci waxtu wi ñoo ngi ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa yan lañu nañu yàlla may dégg ak topp amin ya rabbal alamin mbokk yi ba léegi suñu yenent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi moo ñuy baaxee ci anam bi nga xamante ne buñ ko dundee dinañu mucc waaye buñ ko inculquer suñu dund dinañu texe te borom bi subhaanahu wa yenkee wal ko ko ñu nit ñu di leen ko baaxee fii ci daara ji Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bi képp ku nekk ci ñun walla kenn ku nekk ci ñun war ci war a mën a tànqee li nga xamante ne dina ko war a mën a bénéficier wu tax na ñu bugg leen dégtal xadiisu abi dharrin al ghafaari radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ma rawa an illahi tabaraka wa taala annahu qaal abi darrin alxifaari radiallahu anhu nee na naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa ca lamu mu soloo ca lakk boroomam dee di borom bi subhaanahu wa mu ne ko yow sama yonent bi maa ngi lay seedeloo ne maa ngi nii di wax ak sama jaam moo tax yàlla ne yaa ibaadi sama jaam yaa ibaadi yéen sama jaami mboolem kuy jaamu yàlla kaay nga ñëw wuyu woote bu ñu yàlla woo borom bi ne bu ngeen ñëwee nangeen dëkk seeni nopp ma digal leen ma jox leen yóbbal ba ngeen di yóbbal ma jox leen li ngeen di yóbbaale mu doon xeetu ndigle ak xeetu tere yi borom bi nañu yaa ibaadi yéen sama jaami inni haramtul zulma ala nafsi man yàlla de maa araamal tooñ ci sama jëmm ji araamal naa tooñ sama mbindaa fooni araamal naa ci sama jëmm ji tooñ buy jógee ko ci man yàlla di dem ci ma mbindaa fooni loolu araamal naa ko ci sama bopp araamal naa ci sama bopp may tooñ sama mbindaa fooni ak lu nekkee ak nu ñu munti mel araamal naa tooñ sama mbindaafooni araamal naa tooñ ci sama jëmm ji yaa ibaadi yéen sama jaami kaay leen déglu leen inni man yàlla xaramtul zulma araamal naa tooñ ala nafsi ci sama jëmm ji bugguma kenn di tooñ waaye bugguma tooñ kenn tamit ci sama mbindaafooni borom bi nañu ba léegi gannaaw bum ñu woowee bañ ko uyu keroog bam ñu woowee ñu wuyu ko mu ne ñu maa araamal sama jëmm ji tooñ bay tukkee ko ci man di dem ci yéen mi bind te tamit wa ja'altuhu baynakum muharraman def naa tooñ mu doon lu araam seen diggante wa ja'altuhu man yàlla maa dem maa def baynakum seen diggante mu mu doon lu xaraam la yàlla def suñu diggante mu doon lu xaraam mooy tooñ mooy tooñ nga tooñ sa directeur ci tooñ yi la bokk directeur bi moo la war a baal nga tooñ sa borom ci tooñ wi la bokk sa borom kër moo la war a mën a baal nga tooñ nit ci tooñ yi la bokk moom moo la war a baal ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa ne yàlla ne maa def tooñ mu doon lu araam seen diggante gannaaw dama kaa araamal sama jëmm ji ma bañ a tooñ sama mbindaafoon yi kon def naa ko mu doon lu xaraam seen diggante yéni neen mbokk yi borom bi nañu kon nag avertissement bi leen la dong fala tazaalamu bu leen di tooñante fala tazaalamu ngella waay bu kenn na tooñ moromam fala tazaalamu bu directeur tooñ employé bu employé bi tooñ directeur bi waaye waaye bu borom kër tooñ soxna si waaye nag bu soxna si tooñ borom kër gi doom bul tooñ way jur bi bul tooñ sa njaboot falaata tazaalamu bu leen di tooñante waaw mbokk yi gisuleen ne bu dee tooñante ba ñu nekkee suñu diggante lay installé wu soppante waaye mbokk yi gisuleen ne bu dee kenn si ñun tooñut moromam pendant un mois pendant lay installé wu suñu diggante mooy soppante cofeel bu kenn du naataable moo ne bu dee lii mooy jagal suñu penc bi kon nañ leen géema installé ñàkk tooñante suñu diggante ci kàddu ci jëf ak ci geste na ku nekk respecté moromam na ku nekk jox cër moromam na ku nekk nawloo moromam bul wax sa morom la koy merlo su booba tooñ nga ko waaye bul jëf sa morom lu koy merloo su boobaa tooñ nga ko te tooñaante bi askan bi nekkee saa yu mu dëñee climat bu neex lañu ñu yàlla di waajalal climat boo xamante ne ku làmb sa poos am loo fa fekk climat boo xamante ne ku gis sa morom gis si moom kóolute bu mat sëkk climat joo xamante ne ku seen sa moroom bëgg ko kilima joo xamante ne kenn ku nekk li mu yéenee boppam lay yéene moroomam parce que day fekk ne appliqué nañu sart bu ñu borom bi subhaanahu wa mu ne ñu fa laata bu leen di tooñante tooñante bi bu fi deñee rekk climat buy installé ci jaww ji climat bu ñuy nangoo subir lañu climat bu ñuy nangoo jëflante la suñu diggante day rëtax suñu diggante day neex kenn ku nekk day am yërmande jëmale ko ci moroomam waaye fekk ñu ngi tooñante ci gémmiñ fekk ñu ngi tooñante ci kàddu fekk ñu ngi tooñante di naxante fekk ñu ngi tooñante ci côté trian ya ñuy trian suñu moroomu jullit wala suñu mbokk doomu aadama bi ah climat bu guus dong lañuy dund waaw insécurité lañuy dund ñaaka kóolute lañuy dund su boobaa day doon loo xamante ne kenn du xam foo ko waay di joyante mu doon xadis ba nga xamante ne sallallahu alayhi wa moo ñu ko baaxee ci xadisu abi zarrin alxifaari radiallahu anhu nee na suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi ma rawa an illahi tabaraka wa taala annahu qaal yaa cibaadi inni xaramtu lzuluma ala nafsi wa jacaltuhu baynakum muharraman fala tadaalamu rawahu muslim mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war jotaay bi suñu mbokk yu war a joxe xibaar yi ci nasaraan ñu ngi ni taxaw fas yi ni leen jébbal bërëb bi ñu ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa taala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana amin ya rabbal alamin aminna fi awtaanina waslih allahumma a'immatana wa wulata umuurina allahumma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim aqulu ma tasma'un wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakatuhu wa barakatuhu wa